yow mi am na mel kay ma wan la Cheikh Béthio kay na mantikook buur ba kii la Cheikh Béthio yow borom na mel kay ma wan la Cheikh Béthio kay na mantikook buur ba kii la jërëjëf tuuti jërëjëf tuuti jërëjëf tuuti xamante ni moom mooy am xew te ni moom moo di euh, tànk kanamu Serigne Béthio Thioune loolu tamit di wana ni moom soxna Aida muy xamante ni moom moo di ci bâche bi fa séene amal li nga xamante ni moo di jullit it gi moom mi nga xamante ni moom mooy def ay toggi àjjuma di dimbali léegi boo demee Euh, tey soxna Adja Diallo jàmbaaru Serigne Béthio jàmbaaru lislaam ki nga xam ne tey daara yi moo ko ñor alxuraan moo ko ñor tey lan moo ko ñor tey ndongo daara yi moo ko ñor gis nga chaque ajjuma li muy def ci nga xam ne mooy ndimbal ci li nga xam ne mooy daara yi jànkat alxuraan yi dëgg-dëgg Serigne Béthio lañ koy xoolee dañ naan Serigne Béthio jógewu fi benn yoon jógewu fi bu ñu xoolee image bi rek saa su ne Serigne Béthio la ñuy jox kon yaakaar naa sëriñ Béthio jógewu fi benn yoon waaye nag gis nga li muy def tous les vendredis tey fii ci Madinatoul salaam tey tey génne li nga xam ne euh, ci poosam la ay milliards dox ko daara yi jox ko li nga xam ne mooy jànkat alxuraan yi tey nag ñu nekk fii ci bësu it ci bés boo xam ne ginnaaw bi ñu wooree ba pare nag tey ñu julli bés bu sell bés boo xam ne bésu xéewal la bésu ngëneel la tey ñu teew fii ci Madinatu Salaam ànd fekk jëruñ Serigne Béthio ji ànd ceeg jàmbaaru Serigne Béthio ji ànd fekk nga xam ne jàmbaaru lislaam saa su ne kon Sénégal àdduna war ngeen roy jëmm ji nga xam ne mooy soxna Adja Saliou mu ngi nii jàmbaaru Serigne Béthio ji ñoo xam ne lislaam rek moo ko ñor alxuraan rek moo ko ñor yaakaar naa képp koo xam ne gis nga image yi dëgg-dëgg Serigne Béthio Grande moo fi nekk ba léegi muy kan soxna Adja Saliou mu ngi noonu ànd ak ñi xam ne nag mooy soxna Badoor ak nga xam ne mooy soxna Adja Saliou ak suñu yaay mbeen dondoo mu ngi noonu macha allah lii nag dëgg dëgg lislaam la kii dëgg dëgg yàlla moo ko ñor parce que koo xam ne foog nga alxuraan foog nga xasaay suñ bàmba di joxe ay bernde ñi néew doole nga dimbale fonk daaray alxuraan yi fonk jàngale alxuraan yi ah dëgg dëgg yàlla moo la ñor ah kon nag mu ngi def ci bool boo xam ne mooy boolu yàlla bi bu dul fees mukk kon képp dafa war a roy ki nga xam ne mooy soxna si di jàmbaaru Serigne Béthio mu ngi noonu tey nag ñu nekk fii ci Madinatoul Salam sur la chose islamique ni sur la talibité parce que quand Serigne Saliou voulait corriger des erreurs dans le mouridisme c'est lui qui l'appelait fait le tour du pays je veux que les Sénégalais voient qu'est-ce que c'est qu'un vrai mouride Donc celui-là, n'est pas lui qui va apporter une torsion dans l'application ou la marche du mouridisme. Donc euh, c'est cela qu'on a rappelé tout à l'heure dans notre prêche. Également aiguillonner, exhorter nos, nos à bien tenir ces lectes que ce nous a laissé de, de, bien nous cramponner à ce câble qui est la voie du Kant, tout en nous préoccupant des concepts enseignés par le prophète de l'islam, en évitant tout ce qui n'est pas bon, surtout le mensonge, la calomnie. Le vrai musulman, c'est celui qui ne blesse pas son prochain, qui ne salit pas son honneur,